alaykum, Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di leen euh, la Mamadou Camara yore wàllu presse fii à Allo Dakar TV international euh, maa ngi souhaité ñëpp euh, joyeux Noël De leen souhaité année bu bees bi at bu bees bi doon gënal ci ñun yàlla defal ñu xewal bu bëri mais ñu wér yaram ak projet yi xew ak année bi 2020 Ami gën gën neex bi le mois 2019 merci. internet nuyu présentatrice fii ci TV tey euh, l'équipe d'Allo Dakar TV ñoo leen remercier ci fidélité franchement émission bu ñu dugal ngeen vraiment macha allah nañ bu aussi de remercier suñu DG monsieur Bounama Fati yoo xamante ni daf ñoo yaatal def ñu comme ay membres de sa famille vraiment di souhaiter samay collègues bi yëpp une bonne fin d'année yéen tamit bonne fin d'année à vous mes meilleurs vœux 2020 yàlla defal leen jàmm yokk teranga bi ak sutura bi merci. asalaamaaleykum internautes yi waa Allo Dakar TV mal euh, Pape Ismaël Kébé. Je souhaite souhaite un joyeux Noël je souhaite souhaite aussi une bonne fin d'année 2019 que 2020 soit une année de réussite paix euh, nekk année bu année bu ñu Il y a si ñëpp pour que la fête soit belle pour tout le monde. Je suis maa ngi leen di bu baax baax man la barasek Dakar TV cadreur monteur euh, di profite di souhaiter une bonne fête de fin d'année, Eh, Allo Dakar ak ñëpp ñuy seetaan ñuy suivre fii ci Allo Dakar di ziar bu baax a baax ah mbay sama sama sama monteur nga xamante ne ba may jàppale fii tout temps ngi leen ziar sama caméraman Conté présentatrice bi Soxna Dieng pap Camara euh, di wax tamit suñu DG Bounama Fati mention spéciale à vous. asalaamaaleykum mbokki àdduna maa ngi nuyu ñëpp di ziar nyep. man la Konté euh, élément Allo Dakar TV international cadreur bon c'est juste pour souhaiter une bonne fête d'année pour Allo Dakar TV di si jiital suñu DG monsieur Bounawa Faté ak sama gars ay Mbay Pape Bara Camara ak Mbay mën a ñëpp maa leen souhaité ñoom ñëpp année bi ñuy dugg gën bi ñu génne ñëpp am jàmm waaw jaajëf sama gars ma profito si at bu bees bi euh, nawel mooy nuyu sunu mbokk catholique yi di leen ñaanal ñu ñëpp noo nekk si réew mi am jàmm ñoom sax wax dëgg yàlla doo leen dégg si dara ah daara doo leen dégg si dara vraiment war leen am ay yenn xalaat yoo xamante dañ koy xalaat si ñoom ñoom ni ñuy fonctionner su lu bari ñuy ànd ñoom at bu bees bi di ñaan yàlla defal ñëpp jàmm yéen mu njëkkalee ñaanal yéen waa Allo Dakar yàlla defal leen jàmm équipe jeune ngeen góorgóorlu Allo Dakar mm, euh, ku fi jaar feneen foo dem bugguma na ngeen dem feneen mais feneen foo dem euh, lay soxla na ma yàlla defal leen wér yéen tam ngeen dem ba nekk ay patron de presse am seeni société am lu ne ah, parce que loolu mooy àdduna yàlla def si réew mi ñëpp am jàmm ñépp am bàyyi xuloo bàyyi xeex bàyyi pàddante bi xam nga ku ne boo xëyee nekk